wa rahmatullahi wa mbokk yi ginaaw bu nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal sàkku ci yéen tamit ñaan dellu siwaat nañ seen jataay bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale fii ci seen site bi ñuy wax Tanime TV Seydina moo nekk ci xarale gi mbokk yi tey taxaw seetlu bi mi ngi jëm ci ki ñuy wax Ahmed xalifa Niass ci waxtu wi xam naa bala maa tàmbali ñu ci bari seen xel dina dem ci xam daanaka li ñuy bëgg a wax xam ne ay kàddoom dana jukk yu bari ci waxtu wi ñu toll kàddu yi nag boo ko doon taaraar li nga ci gis ci njariñ daanaka du bari xanaa ñu tàmbalee ci njalbeenu koor gi nga xam ne wax na ci wax yoo xamante nii kenn du ko bañal waaye jàppoon naa ne am na kàddu yu ko gënoon a organiser wala yu gënoon a jaar ci yoon mooy dafa wax ne moom def déclaration ne um na koor ci samedi bi ndax ajjuma ji ci la weer wi feeñ ca màkka te màkka ak màddina ca la diine ji jóge mooy sunu cosaan ngir ñu roy diine ji dëgg la loolu kenn du ko weddi yonent bi sallallahu alayhi wa foofu la ko yàlla joxe woon diine ji mu nekk fa ñu fitnaal ko fitna ju metti mu génn gàddaay dem màddina nekk fa ba yow ma ak akmaltu lakum diinikum ba sun borom xamal ko ne ko diine ji mat na waaye ba muy laata génn màkka de yónnee woon na Éthiopie ne leen dem leen ngeen làqatu ji fa ndax foofu ab bóora nga fa boo xamante ni kenn du fa tooñ kenn kenn du fa jël ak kenn te booba diine ji tasaaroogu te ko ka mu doon joxoñ ne dem leen fa ñooña du noon ay jullit gàddaay ga sax dem nañ fa ñaari yoon gàddaay nañ fa ngir làqatu fa ngir rawale seen diine kon li nu bëgg a jàngale foofu rek mooy diine ji yonante bi sallallahu alayhi wa tënk ko woon ci benn côté ne fi ngeen koy jële euh, ba abadan diine ji la ca jot jot na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sama woote bii fu guddi àgg ak bëccëg àgg sama woote bi dina fa àgg kon diine ji tasaaroo na wax saxaaba yi ne leen balliqoo an yi walaw aaya jottali leen jottali googu nag moo jotale senegal ci diine ji moo ko jotale Mauritanie moo ko jotale waaye diine du noo coloniser ba ñoom seeni waaw lañuy ñuy déglu fu nu joxoñ la ñuy déglu déedéet ñun colonisé wu nu diine colonisé wul kenn yàlla dafa wàcce diine ji waaye waxut ne fii mooy fi nga xam ne mooy bu ngeen fi jëleewut seen diine wala bu ngeen àndut ak ñoom seen diine wérut déedéet euh, wax na ne ku ñuy suul dañ lay suul nga jub lu Màkka ak màddina euh, wala nga jublu euh, màkk ak màddina ngay jublu kon ñun nanuy jëlee foofu sunu diine nanuy fexe ba am loolu diine ja ñu leen di bàyyi xel kon bu nu xasee ba woor ñépp a war a woor ma jàpp ne moom li muy wax loolu jàpp naa ne man awma ci lu leer waaye ku ko laajoon ne ko ba nga juddoo ba léegi ndax mësoo am ak jooyoo ak waa Makka ndax mësoo tëbaski te waa Makka tëbaski wunu walla nga tëbaski ba noppi waa Makka soog a tëbaski walla benn mësoo woor jiitu waa màkk wala tabaski jiitu waa màkk wala waa màkk jiitu la yooyu kon day wane ne boobu loolu ku ko laajoon la muy tontu mooy mas na maa woor waa màkka wori kon loolu texul diine ji yàqu walla sunu pas-pas yàqu euh, la mu ca dugal nag mooy waa màkka mën nanoo woor waa senegal woor ndax ñoom seen bis bi ñuy taxaw arafa yenn saay du tollook ñun suñu juróom-ñeenti fan fii kon nanu bàyyi li ñuy wax ne diini ji dañ ko tënk te it def na déclaration boo xam ne Ahmed Khalifa Niass xamuñu ko ci euh, mu yor commission boo xam ne day séentu weer wala nit ñi dañ koo dénk sunu diine wala sunu diine dañ koo doyloo ci sunu diine ba moo woorloo wala moo nuy wariloo wala moo nuy def te mbokk yi tuuti am na jafe wala tuuri lu am ci séentu weer weer weeru weeru weeru koor weeru korite moo ko gën a garaaw weeru korite ndax weeru koor bu fekkee ne danoo woorloo nit ñi te ñoom woor ñu woorloo leen te koor jotagul loolu amul benn problème waaye wariloo nit ñi te koor gi des ramadaan des loolu moo gën a garaaw moo gën a garaaw moo tax weer séentu ko ay ay méthode yu baax ay xam bu baax a baax la kii bokk na ci moom wax dëgg yàlla war a nañ koo artu ndax diine ji dafa mel ni def koo def lu mel ni toolu pël na ma pël baal na ma tëli baal ruq wéet ci sa ruq def sa déclaration mën na noo woor tey ndax weer wi feeñ na ca màkka feeñ na ca nàngam te waa Sénégal gisuñu ko Sëñ Tuubaa am na koo xamante nii dafa dikkoon ne dafa bëgg dikk ci moom ngir séentu fi weer ngir waree fi man fee jullee ba mu dikkee mu dikk ñu séentu weer gis na ko mu dem ba ci benn dëkk mu at ñoo ñoo wari mu daal di dikkaat ci sëriñ bi ne ko man kat dama doon dem waaye dëkk sàngam wari na moo tax mu dikk sëriñ bi ne ko dellool ba fa ñoo fa ña ña wari ña gis weer ba wari fa nga waree foofa waaye ñun gisagunu weer kon mbokk yi coowal weer waaye Ahmed Khalifa Niass mii nag dafa bokk ci ñoo xamante nii diine ji wax dëgg yàlla am na lu bari lum ci lum ci lum ci lum ci lum ci lum ci ruur ruur na ci lu baree bari loo xam ne jàppoon naa fi mu toll ci at nga xam ne jamono yee xaw ma wax na soixante dix ans wala lu ko teg ci ay at mën a nekk ci diine ji amu ci dara dara dara dara dara loo xam ne daanaka fi mu toll nañ wax ne nit ñu doyloowuñ ko ci seen diine moom lu muy mën a wax xaw ma lu mu mën a wax ak waa Sénégalais waaye waa Sénégal ñoom doyloowuñ ko seen diine wala boog li ma bëgg a wax foofu ngir maandu ñi ëpp ci Sénégalais moom dégluwuñ ko ci wàllu diineem. <clears throat> nit koo xamante ni xamoo politicien la <clears throat> xamoo nituk lislaam la xamoo lu mu ci doon dëgg la lislaam aayewul nga nekk nituk diine jiite ci imaam ba wàcc dem ci politicien ba wala nga wàcc dem ca médecin ba di faj yooyu loolu lislaam da koo bëgg waaye xam nit ki ban xoolin ak ban pas-pas moo nekk ci moom bu ñu xamee ne pas-pas bi kay mooy pas-pas ab jariñ nit ñi ak jariñ gi nga leen di jariñ kat teg leen ndax fii dégg ngeen ko fi mu ne SMS mën nañ cee maye daanaka jàppandil diine ji jàppandi joo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan kiyanteeg kiyam ci weeru koor yooyu nit ñi soxlawuñ ko nit ñi li ñu soxla mooy xam lan mooy seeni farata ak seeni sunna nan la ñuy def ba mucc na fan la def ba xam si teg seen tànk mu kàllaf mi toll ni moom nag nga xam ne saa bu weeru koor dikkee weer wi nit ñi waroon toog damaa gis ne sunu kilifa diine ñi ci daan jàngale xam-xam bu weeru koor jotee sax dañuy toog nopp lu ne bër nañ ndax dañoo bëgg a concentré wu ci jàng alxuraan concentré wu ci jàng jaamu yàlla waaye concentré wu ci wéetal sunu borom tabaraka wa taala ndax xam na ne weer wi weeru yiw la weer la woo xamante ni weeru tadabur la mooy jàng alxuraan weeru def lu baax waaye weer woo xam ne yow lii se yéene lépp mooy lëntal masala te bu nu waxee ngay bàkkoo ne sëtub yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngay dem ndax sëtu yonante bi rek sëtu yonante bi rek mën naa jëriñ dara sëtu yonant bi rek laa ndax mën naa jëriñ am na ku baax ku nekk fii de koo xamante ni ba diw dikkee ne ko man ana sërif sëtu yonent bi laa mu ne ko man liggéeykatu yonent bi laa jàpp naa ne lii moo gën a dëgër fuuf ne deret aboo jaxlin abo taalib yooyu ñëpp lan lan bokk ak yonent bi bokk ku jege moom mii nag moog lamin laay wax Lamine sàll Lamine yi tamit dafa mel ni moom loolu daf koo neex juuyoog nit ñi waxoon naa ko barki démb juuyoo gi lim ci wan mooy tax nit ñi xam ko waaye xam la xam la ci xamin woo xamante ni xaminu bécc ci ngër lay doon loolu jëru ko woon loolu bañoon laa xam sax moo gën xam ngoo xamante ni nii ñépp dangay ngay doyadi ci seeni xef dangay ngay doyadi ci seeni xol doo am benn wàccuwaay ci seen dënn doo am benn wàccuwaay ci seen xool ñu xool la doo am benn wàccuwaay lu dul wàccuwaay wi ngay am daal mooy ku nu doyadil ku nu suufeel bicc la ci suuf Lamine dégg naa ko mun naa feeñ na yëmbal feeñ na nangam weddi luñ ko ko de waaye nit ku nekk lala doy nga def ko lala doyut nga bàyyi ñu leen doy ñu def la waaye tey mooy bis boo xamante ni nangam wala tey mooy bis boo xamante ni ku ko woor ku ku woor nga bis boo xamante ni bisu araam la ndax bis tey la bisu it xeet yooyu yépp ñu lakkal nu ci koo xamante te nit ñi seeni pas-pas ak seenu gëstu diine doonatuñ ci jaahil xam nañ lu wér du dëkk sàngam rek loolu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko ci benn addis alxuraan leer bu dëkk sàngam gisee weer na ngeen woor boo dëkk sàngam woree na ngeen wari loolu waxu nunu ko loolu moom kenn waxu ko ci diine ji ku gis woor weer wooral ku ko gisul mottilil ba ci fanweer ya ñun nag gis nu ko lii moo nu doy tey lii mooy leen lim fi leen lii nga xam ne def nañ ko te loolu wàññiwul dara jàmm rek lay def day indi jàmm rek waaye ku ci nekk bëgg la nga yow nga bëgg koo saxal bëgg weddi ay nit ak bàmmeel yi ni defe ne nit ki ci bàmmeel mën naa def nangam boo xooloon sax ci si kii laa ko xoole fekk na ko lu ko jiitu déglu na waaye Walfadjri laa ko déglu yow nuyoo rek tëb rek tëb rek attaque laajagun la sax nga tëb attaqué nit koo xamante ni doo kàllafeel sa bopp mukk ci wax doo kàllafeel mukk sa sa bopp ci col doo mukk sa bopp ci am naa njaboot te njaboot googu kat ay sénégalais leen nu wax liñ may wax ak li ñuy kii lépp war naa leen koo moytul ah waxtu yi muy def ci télé bi di def ay trois heures de temps ay nangam yoo xamante ni ay werante ay gone yu ndaw di ko weddi ay jigéen di ko loo mel ni comédien boo xamante ni sa promotion dëgg daal mooy koor gi nga toog li wax loo xamante ni li ngay wax ku la weddi nga ne ko maa la ko gën a xam ak man sëtu na wala damay dem ak damay gedd bu ngeen ma naree weddi nit kay boo saxalee diine ji ku ci saxal lu saxul danañ ko weddi diine jii ku ci saxal lu saxul danañ ko weddi wax nga ne ku weddi màkk ak màddina xamal ne weddi nan la waaye yow it ku weddi sunu mag ñu baax ñi wala weddi lii fi amit danañ la weddi ndax la tax ñu lay weddi mooy lii moo na doy màkk danoo yor diine ji ne munu ko yonent bi sallallahu alayhi wa nee na du nit ku weex wala nit ku xonq wala ajam wala dara koo xamante ni dafa gën nit lu dul ragal yàlla taqwa mooy li nga xam ne sëñ Tuubaa wax lam bi annama tafaawatul wara bil ilmi wa diini yakkoonu fasbira li jar njëkkante ci àdduna mooy njëkkante xam sa diine ak ragal yàlla loolu mooy njëkkante bi waaye nag njëkkante palaato plateau bu nekk fu ñaari jongama nekk nga ñëw kii bu ay góor nekk diine ji du ju ñuy kafe du diine junuy foye du diine junuy wutew tur diine junuy wute yàlla la junuy wuta ragal yàlla nanu artu bu baax ñi koy iwite tamit xam na ni iwite wuñ ko ngir mu jàngale diine waaye dañ koo iwite seen promotion seen promotion tele loolu lañ ko iwite ngalawaay sëñ bi li des ci say at moo xam mu néew la xam mu bari seetal loo ci orienté loo ci defal diine loo ci defal diine loolu mooy course bi waaye course bi du dan maa xam dan fi nga bokk ku fa bokk ñu xam la ku fa bokkuñu xam la ndax foofa cosaanal diine la liggéey bu nu laajoon ñi ëpp lu nu bind ci siira bind ko ci yonante bi bind ko ci diine faaw ñu tudd ñaseen faaw ñu tudd sa ñaseen loolu nag ku am foofu nag leneen li la war a daw rawloo mooy nga sax ci diine tey jubbanti nit ñi waaye di lëntal ci diine yàlla ji ku ci lëntal boo taxawee ci kanamu sunu borom li nga xam ne diine du aw askan du aw sant du dara diine dafa tege ci lu leer naññ yonente bi salaa salaam alxuraan ak yépp ihdina siraat al mustaqim loolu mooy diine lislaam ñu ngi jégalu bu baax a baax kàddu yi sax xaw nañ cee kii waaye nag de yàlla jëru ko woon sax di ci wax waaye nag moom it li muy lëntal dafa bari lool ñu ngi taxawlu fii di leen jox daje beneen jamono wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.